ma reetaan loo sàmbeen bi maa ngi nuyu euh, Chérif Dia mm. Fatkine Dem Euh, Cheikh Tidiane Diaw di nuyu tamit tous nos très chers téléspectateurs di leen souhaiter tamit une excellente année 2022 ma ànd ak yéen nag euh, ci xibaaru jaww ji. Mhm. ayca fin d'année bi gis nañu dafa xawoon tàng alors on espère que dinañ génnewaat suñu veste yu diis yeeg manteau yi gis naa kenn naan nañ ko rangé waaye ñun bëgguñoo denc manteau yi. tey suba génne def nga manche longue ah, de. waaw génne nañ ko ñëpp génne nañ veste yi xaw na nga law nag euh, tey si mhm. suba du ma wax sedd mais. Euh, ñu ngi sentir tuuti fraîcheur période bi ñu nekk la bu ñu fàtte ne on est en période de sedd. ah mhm. euh, naata. Mhm. température bi gën a faible bi ñu am ce matin c' degrés à Kolda ça reste euh, quand même très bas ah gis nga seize degrés. Ah à Kaffrine dix-sept c' est des températures xaw na quand même. nañ ko wax ko moom. <laughs> Euh, bu ñu jàllee dans l'après-midi les températures euh, elles vont augmenter ça reste quand même ay températures stationnaires mhm. euh, bi gën a kawe bi ñuy am c'est 39 degrés à Kaffrine mhm. sur le littoral Dakar 32 degrés la ñuy am 34 à Saint-Louis au nord dina ànd ak nag quelques particules de poussière bu ma annoncé woon vendredi c'est toujours présent mhm. cet après-midi ñu jàll ci marée bi wàllum géej ah comme ni <laughs> bu ñu fàtte gilet de sauvetage bi parce que géej gi moom amul bànqaas su ma mënoon branché ay kii. banqaas si géej koy def wala des na tuuti damay dem toog géej di leen pointé di xool pour ma xool ndax sol na gilet de sauvetage la ci baax <laughs> très bien mhm. jant bi moom dina fenk léegi nii dans pas mhm. très longtemps oui montrer le bout de son nez à 7h36 bu 18h51 jotee ci lay euh, daal di làqu ba suba incha allah incha allah léegi ñu jox la rendez-vous ba ci kanam ay booru 9h incha allah déedéet tey déedéet résolution bi nga jël ci 2022 bi dégg naa mooy bàyyi bàyyi lekk wala wàññi lekk du ma ko bàyyi du ma ko mës a bàyyi <laughs> da koy wàññi kon <laughs> merci beaucoup Oumy merci euh, léegi une courte pause et puis on revient sur le plateau